si ay euh, manifestation ñoy xorom donc maa ngi leen di gërëm bu baax ñoom tam si seen mobilisation si seen taxawaay di gërëm ñi ma fi jiitu si orateur yi muy euh, Daouda de dinaa dellu si si moom di euh, bàjjenu gox sama sœur Adama di sama grand frère Moussa Sam, mon jeune frère Bamar mes jeunes frères et collègues Abdou Fall ak

ñi ma fi juddu xam junj nañ ko ñëpp xam nañ ne dañuy yëngu si si politique waaye politique man damay faral di wax ne politique da nga koy jox signification politique da nga koy jox sens parce que bu fekkee ne da ngay politique di dem di seeti nit ñi di ñaan seeni carte wala di ut baat te joxuloo sens bi nga xamante ne mooy sens su politique maanaam développer sa dëkk développer sa gox donc politique a moo tax ñuy sawar

de ba ma fi defulee ñoom war nañ ñëw fekk que ma ma def fi par la force donc li ma def dama ko war def obligation la ma def ko mon naa wax ne c'est pas parce que je suis un homme politique parce que fii la dëkk si donc madame Samb ñu ngi lay féliciter di la encourager di la remercier di wax aussi les ñi ma sama jeune frère yi li ñu wax rafet na je crois que nous ñu c'est suñuy ay action comme nous ñu ko li kenn mën li li kenn mën fukk ñoo on joint nos actions mon jeune frère Laxaat mon jeune frère maître Bama mon jeune frère Abdou Fall notre grand Moussa Sambou a encadré ñu ak ñeneen ñoo xamante ne fi nous faisons leen di je crois que développé développer nous avons développer Rufisque te loolu il est temps que mu am donc engagement bi ma engagement bi ma Moi, effectivement phase B. madame Sambou wax na